ak ay feebar yu sew yoo xamante ni euh, oqatu bi ak euh, xasanu bi comme on dit da leen di sonal loolu loolu bu ñu paree bi passé ci korobët lañ doon waxtaanee. Mm-hmm. korobët moom mooy. ah lu ma ci xam pël laa nag dégg ma woon ah ok ok xam moom du xasan waaw xam aussi day xasan di d' accord mais bii nag moom d' accord moom mooy korobat moom mooy moom mooy heure. waaw ok donc euh, Mado euh, bu nekkee euh, kon rubrique Mado pare na ñu ñëw kon ak Mado mu wax ñun ci heure ak ak ñoom in korobat mbir yooyu noonu. d' accord Dieynaba maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee rek léeg-léeg dafa am ay xeetu maanaam feebar yoo xamante ne daf ñuy sonal ba tax na. na dañu dem seeti kenn koo xamante ne xelam dafay màcc loolu ci li nga xamante ne moom moo di wàllum der ak lépp lu koy faj euh, donc mu di le dermatologue euh, docteur Ndiaye mu xamoon ñu li nga xamante ne moom mooy xam lan euh, mu xamoon ñu li nga xamante ne moom moo di ër <laughs> waaw donc lan moo koy faj ak naka nañu def pour watandiku ba nga xamante ne du ñu dalati ñu dem seetaan élément bi ñëwaat ër feebar la boo xam ne dina dal doomu aada bu nekk mu benn ronron la bu ñëw si yaram mu mel ni tubaab tudde ko bu njëkk ba herpesicine moom na naa naan woy herpesicine wala dermatophysie de la peau glabre heure bari na mën na mën na nekk si bopp bi mën na nekk si yaram bi mën na nekk si weey mën na nekk fu nekk mais heure bi gën a fréquent mooy heure bu rond bi nekk si yaram bi boobu bu la dalee boo demee si dermato bi dina la bind ay garab ñu faj ko mu saafara rapidement mais problème bi doo loolu problème bi mooy heure bii dem di dellu si boobu nan bañ loolu nag souvent femmes yi muy dal mooy femmes yi utiliser xeesal bi ñuy utiliser benn produit boo xam ne dafa nekk si biir tube bi le clobétazole clobétazole boobu c'est un corticoïde puissant clobétazole boobu femme yi bu ñu koy diwoo di xeesal dañuy rey microbe yi nga xam ne mooy protéger seen peau ce qui fait que ñoom heure da leen di yomb kuy diwoo xeesal ay clobétazole wala corticoïde wala femme yooyu di def ay préparation ci dëkk bi bon kii wuma clobétasol clobétasol moo la mën xeesal rapidement ménage yooyu ñuy def day am biir clobétasol clobétasol boobu nag mooy indi heure yi moo tax heure yi di dem di ñëw comme balle de ping pong mais heure normalement nit bu ko amee dana ko war a dafa war a saafara dan na koy saafara jox la ay garab mu deñ xam nga ñun ni ñuy vivre promiscuité bi léeg-léeg surtout heure xam nga période bi muy gën a ñëw mooy période du tàngaay bi c'est vrai que période boobu les champignons yi di gën a développé c'est vrai que bu nu boo amee plus d'hygiène heure yi mën na bañ a ñëw waaw mais heure dina dal femme bu set comme ni ma ko waxee léeg-léeg da ngay femme boo xam ne dafa set mais di xeesal donc heure mën na dal ku set mais euh, li nga koy wax li nga wax dëgg la manque d'hygiène léeg-léeg na favoriser heure yi mën na favoriser même sànq euh, xam yi nga doon wax voilà. man conseil bi may joxe mooy euh, booy diw nga éviter lu am clobétasol lu am clobétasol day indi heure buy dem di ñëw. bu dul loolu itam léeg am na ñoo xam ne dañuy am jabet boo amee jabet itam xam nga heure dafa yeb ku am jabet ñi am jabet heure da leen yeb donc heure yi léeg bu bu bu nekkee sa yaram di law di law di law cela veut dire que peut-être mën nga am jabet wala nga am beneen feebar ci suuf donc heure buy dem di dellu si daal ñun bëgguñu ko mais par contre heure normalement conseil bi may jox boo demee si médecin bi bu la joxee ay garab ay jumtukaay tere la clobétasol bi dafay wér heure moom day wér voilà du lu héréditaire loo xam ne la bu ñu la joxee nga naan ko mu jóge fi la heure def fi jóge heure feebar la boo xam ne dina dal doomu aada bu nekk mu benn ronron la bu ñëw si yaram. ah mais franchement Mado image ñu gis doy na waar parce que boo déggee heure doo xam ne que nekk euh, intensité bi la am. effectivement ba comme ni nga ko waxee rek heure dafa nekk lenn loo xamante ne dafa euh, sonal doomu adama te la plupart daf lay faral di dal donc euh, ci lim ñu gën a xamal nee na en période de chaleur ci lay gën a faral di dal doomu aadama yi. Mm. mais dafa yëpp ñi nga xamante ne nag moom moo di femmes yi utiliser ay xeetu xeesal ak yooyu. parce que mm-hmm. la plupart ñi nga xamante ne defar produit yooyu dañuy. dañuy utiliser benn produit euh, bu tudd clobétasol te mhm. clobétasol nag bu fekkee dafa dem ba bare ci euh, li nga xamante ne moom moo di diw yi wala produit yi ñu jëfandikoo daf lay jox ay heure donc ce qui fait day faral di dem di ñëw te bu demee ba demaat di ñëwaat dafay indi yeneen complication yoo xamante ne faj ko sax dina jafe mhm. donc et puis di conseiller waale aussi euh, nit yi pour ñu am tuuti li nga xamante ne moom moo di hygiène hygiène de vie hygiène maanaam sax ci sa wàllu yaram ni ñu ko waxee woon la plupart parce que dafa nekk ay euh, maanaam microbe yoo xamante ne ci suñu biir yaram la nekk. Mm. d'accord il faut un quelque chose pour mu mun a génn. voilà dafa am benn facteur boo xamante ne la plupart moom mooy tax mu am comme par exemple parfois c'est les changements de climat parfois c'est en période de chaleur yooyu yëpp mooy wundu ba nga xamante ne dafay génne léegi bu génnee nag mu nekk beneen fànn boo xamante ne feebar lay doon donc ce qui veut dire que nit yi dañu war di def di xool bu baax li ñuy mën a jëfandikoo boo xamante ne quand même wala euh, problème boo xamante ne dina faju donc li ci gën a euh, jaaxaloon na euh, euh, nu mu tuddee ci docteur bi ni mu ko waxee rek mooy peut-être traitement bi il faut respecter parce que fii malheureusement bu ñu la joxee traitement da ngay tàmbali def ñetti fan wala ñeent nga arrêté doo respecter durée de euh, traitement bu ñu la jox mm-hmm. ce qui fait boo ko respecté wul continuer waat di utiliser produit yu mel ni ay clobétasol ak yeneen yooyu mm-hmm. mu jox la li nga xamante ne jàngoro bi day ñëwaat mm-hmm. et plus ça continue plus muy persister day gën a jafe faj mën na la indil ay problème te comme ni ñu koy waxee nii xeetu RPC sicile comme ni ko tubaab di tuddee dafa bare façon am na yenn yoo xamante ne mun na la dal ci bopp am na yoo xamante ne day génn voilà ci loxo am na yoo xamante ne sax mun nañ wax ay herpès génital lay doon maanaam ci sa biir yaram wala ci généralement ngay am xasana ak affaire yooyu ñu naan la am infection voilà donc mhm. yooyu yëpp moom moo koy joxe donc dañuy wax daal soxna yi aussi surtout comme fi mu ne nii ñu ngi ci seddaay bi ragal nañ sant nañ ni que du bare mais peut-être produit yi ñu utiliser ñu di ko sóoraale ñuy diw professeur voilà bu ñuy diw daal dañuy diw seen parti yëpp ba nga xamante ne mën na leen indil ay problème donc euh, voilà muy euh, ñu conseiller daal nit yi. def attention day nekk ci sa parti et surtout parti nga xamante day faral di tëju. xam nga donc fa lay génnee comme par exemple. kon les yi am nañ ne comme li gynécologue yi di faj ñoom tamit am xeet yoo xamante mun nañ ko faj parce que ci la ñuy yëngu di wax tamit comme par exemple les personnes diabétiques ñoom heure daf leen yàpp boo gisee nit koo xamante ne day faral di am heure di am heure lu bare. donte mi ngi def traitement te du utiliser li nga xamante moom moo di produit yi yu mel ne ay clobétasol yi nekk ci biir diwu xeesal yéeg yooyu kooku laaj na nga dem seeti médecin ñu xoolaale la aussi sa suukar naka la fu mu dey parce que léeg-léeg euh, dina faral daal euh, di voilà di nekk ay signes yoo xamante ne nit ki dafa mel ni dafa waaw diabétique daal waaw mm-hmm. Mm-hmm. en tout cas heure moom euh, xam naa ne surtout temps nga gën a nekk xale voilà di nga gis surtout oqatu bi mais boo oqatoo tuuti mm-hmm. nest pas que boo oqatoo feneen dafay def lay dafay parce que xamante ne dafay am liquide bu ci nekk donc bu tojee day tax nag yëf yi maanaam même bu dul tas mais day gën a law di law voilà day gën a lu a lekk ko mën a lu mën andi remède bi wala au fait y a des yoo xamante ne c'est vraiment naturel mais xam nga ñii mhm. docteurs yi d'habitude boo leen demee di seeti ba di leen di wax astuce trucs et ñu am ñoom duñ ko du leen gënal ñoom lii leen gënal mooy nga ñëw fekk si leen boo gisee lu la jaaxal nga dem seeti ki nga xamante ne euh, loolu lay faj bu jógee mu traité la ci nu mu waree nga respecté ko et puis yaram yi bokkul sax ku na la faj dama doon gis exemple ñu ne la bu lekk jën bu ñuwul parce que dalay euh, jox da lay jox allergie lay doon loolu xeetu allergie lay doon voilà xaw voilà maanaam sa yaram waaw xam nga bu njëkk ba suñ maam yi dañu doon wax dañu am mbañ mhm. ñu seetlu ne famille bi bu ñuy lekk ay jën yu ñuul wala kii dañuy am ay picc mhm. mujj ñu tere ko ñëpp mhm. ah, waaw ñu naan famille bi picc mooy seen mbañ ñi li mooy seen mbañ ñu naan yëfi dof la mais bi allergie ñëwee la ñu xam ne que am na ñoo xam ne ci seen gène am na produit boo xam ne àndut ak seen seen deret bi yàlla def ci ñoom ak doom yi mu def ci seen biir deret mais li mu wax nii nag di heure dafa wax ñaari xam ne yu am solo nit day sangu yaa ngi wax ay hygiène nan ko wax ci digg bi gis nga nit gis nga nit nga nit buy sangu day jonju nit mënta dëkk rek ci paras paras xëppoo ndox xëppoo nit dafay sangu nit boo bëggut sa bopp nga bëgg ñi nga nekkal ngay sangu ba set sa doom bu xëyee nga sangu bu jógee école wala mu jógee daara ja nga raxas ay loxo ba mu set bala moo nuyoo xale bi day jógee ci mbedd ba ñëw nuyoo mhm. déedéet dafay raxasu ba pare soog a ñëw nuyoo mhm. bu nuyoo ba pare jarutul mooy raxasu mhm. xale bala moo tëdd dañ ko war a parce que xale buy tëdd mën na wokkatu su fekkente ne mënoo ko sang tamit li nga xam ne mooy tenq yi ak loxo yi nga raxas ko ak saabu ba mu set ba guddi gi su koy dugal ci bakkanam wala mu koy wokk wala mu dugg ci bëtam wala muy toxoñu mu xam ne lu set la du waaw du dugal ay dundaafoon ci biir yaram mooy mooy mooy dundaafon yi mooy. microbe waaw yu ndaw yooyu. Mm. léegi nag leneen li nga wax tamit. dundaafon mm-hmm. xees xeesal. Mm-hmm. gis nga xeesal. Mm-hmm. xeesal bokk na ci xeetu ñàkk fulla. wallaahi. jaakaarloog seetu bi <laughs> xam nga. ci kaw nii moo ñu xam nga lu tax jàkkaarloo ak seetu bi nga xool nit xam ne kii du yow yow mu leeral ne kii du yow du yow xam nga ne meloo nii dëgg la c'est bon xam nga da nga ñuul utiliser produit mu leeral xam ne kii du yow. Mhm. gis nga xeereer am na. xees am na am na am na jigéen ñoo xam ne sax bu nekkee jigéenu wérul. seen seen der dafay soppiku ba dañuy mel ne. Mhm. ñu diwoo dara fekk diwoowul. Mhm. am na am na góor ñoo xam ne bu ñu génnee ci feebar. da ngay gis ne seen yaram bi dafay dafay nay. waaye defe naa ne man. liggéey ñàkk fu la moom weesuul mhm. jël sa xaalis. mën mhm. koo jëndee lu dugg sa yaram wii. nga jëndee ko loo xam ne ci kaw rek la yem. Mhm. yow dugal ko ci sa biir yaram wi nga lekk. waaye nag professeur ah professeur la dëgg la mais nag góor ñi nag ñoo bëgg lu xees na wax dëgg yàlla. waaw ah, léegi ci kanam dinañ ci ñëw ci labat ci labat gi. d' accord naa ci yow. Ah. ñoo bëgg lu xees léegi nag góor góor góor nit la yow jigéen nit nga. yow góor nit la yow jigéen nit nga léegi góor a bëgg xeesal ma xeesal waaw léegi kon góor bu bëggee yàmbaa nga dox yàmbaa ah kon góor bu bëggee njaaloo nga dem njaaloo kon soo bëggee góor lu mu bëgg rek nga def ko déedéet affaire bi du loolu gis nga sujet waxin la rek waxin la voilà waxin la ah, yéen dañ leen ah. da ngay dégg sax ñu naan ñu waaw jigéen day xees man leen ñi koy nettali dafa am lu ñu nettaliwul parce que kooku ñaari jabar la amoon dëgg la ñaari jabar bam na jigéen day xees bi mm. aaw bi génnee xees mm. mu ne ko jigéen day xees mm. ñaareel ba dafa ubbi bunt bi ne ko wala mu ñuul <coughs> wala mu waaw waaw kon nag nañu bàyyi mit yi ñuy gëmloo nit ñi parce que détruire sa bopp baaxul effectivement te xeesal boobu nag boo ko xasee ba def mhm. damay waxtaan ak docteur euh, Fatoumata Ly professeur Fatoumata Ly mhm. damay bu polyclinique mu may wan ay images mhm. ma ne ma ne lii dañu war chaque jour bu ñu xëyee ñu teg ko télé ne nit xeesal lii lay def. na ko jéeg xam ko sax. te it nag der gu ñuul bii nu yàlla mm-hmm. jox. la sëñ Bamba waxoon. Mm-hmm. man moom laay waxaat. Mm-hmm. waaw moom mu tedd mooma la mu waxoon. yàlla ñu yàlla taas ci barkeem. la mu waxoon laay waxaat. bu doon ñuul amul njariñ nan xool bët. Mm-hmm. bët lu weex a ci ne ak lu ñuul. Mm-hmm. boo dindee lu ñuul bët doo gis. kon nañu respecté couleur bi. <laughs> merci en tout cas uh-huh. Mado merci si sa rubrique euh, vraiment mm-hmm. euh, rubrique bu riche tey nga ñu indil. replay bi ba léegi mun ngeen ko am ci euh, GFM YouTube ci yeewu leen incha allah sànq maa ngi ko doon wax Alfi nee naa kon góor ñi dañoo bëgg der bu xeet.